pire que les Wade avec nos am dem parce que gis naa lañ ca defoon jaaduwul ma wax ko ñëpp bind ko mu naqari ñenn ñi mu neex ñenn ñi la ma doon wax démb ak bërki dem ci jamonoy lay Wade di ko wax ci jamonoy Macky Sall ma lay wax jamonoy Bassirou Diomaye Faye mhm. ci wàllu DPG bi nga xamante ne premier ministre waroon na ko def président ni Euh, loolu c'est parce que dafa am problème ci réglement intérieur bi léegi nag su fekkoon ne mënu ko def assemblée mën na ko def ko ci format bi nga xam ne moom la décidé euh, am ñu bëri jàpp ni comme président Doudou Wade nekkoon fii parlementaire ni foofu dafa tëkkatal euh, lu jëm ci loi yi parce que déclaration boobu waruñ ko def feneen furul assemblée nationale pour cette fois-ci président est-ce que jëlul loyauté bi mu am envers le premier ministre Ousmane Sonko teg ko ci institution yi dëgg-dëgg li président Doudou Wade wax loolu rek mooy dëgg président Bassirou Diomaye lu waxee noonu ndax dañ koo fal fal ay député au suffrage universel mu am légitimité démocratique bi mu am moom la député yi am loolu mooy dëgg tey bu fii président démissionné woon wala mu dikk pour une raison bu mën te doon mu nekk incapacité xam nga kan moo koy wuti président assemblée nationale ko dañ koo fal kon ñoo yem dignité démocratique bu dikkoon mu dem def conférence bi stade Ablaye Wade wala euh, Cissé wala feneen kay nekk di nekk foofa di di modérateur mënul bu fi mënul remplacer président Bassirou Diomaye Faye premier ministre bi def ko remplacer kon daraja président assemblée nationale dañ ko ko war a nangul loolu kenn du ko discuter kooku fu ko président Bassirou Diomaye Faye waxee bu dee dafay bëgg lu neex Ousmane Sonko mi ngi koy sànq mi ngi jalgati di salfaañe constitution Sénégal maintenant nag man su ma su su ma nekkoon wax dëgg yàlla mhm. Ousmane Sonko wala man koo xelal ñàkk na ñàkkul sax xëy na sama xalaat lay mujj a déglu ci yépp mhm. waaye kon li Bassirou Diomaye Faye wax war ci ciy tiit def ci ndànk. ndax lan. Bassirou Diomaye Faye da koo joxoñ ni ko demal assemblée nationale. ndax la wax ji lu mu bari bari ak lu mu ko mbubb lu mu ko wodd wodd. Mhm. da ko ni da dem assemblée nationale. wan ko ni ko assemblée nationale dafa am coow ak xëccoo te loolu la Idriss euh, Ousmane Sonko di ragal mu wan ko ni ko foofa nga ko war a defee wax ji wax ji boo koy seet la ca mujj mooy foofu nga koy waxe gis nga Bassirou Diomaye Faye taxawaay bi mu wax bi mu taxaw nii encore une fois maa ngi ciy dellu buñ ko seetaatee Ousmane Sonko war naa def ndànk. Ah et pourtant il a dit que. digganteem ak Ousmane Sonko kuy xaar mu yàqu loolu moom ci va avoir. Euh, kenn mënut di nga ci jël temps lu yàgg parce que du mën a nekk. non xaar mu yàqu te nee na c'est le meilleur des premiers ministres. non xaar xaar xaar mu yàqu ko def yaa ngi nekk ci erreur. Hmm. mais aussi compagnonnage politique dafa am seen politique dañ koy seetlu man duma bëgg di wax ci diggante nit ak nit. Hmm. lii boole ay nit ñoom ñoo ko xam li ñu seq ñoom ñoo ko xam mais bu ñu dee nekkee ci seen politique di analyser politique ngeen ma fi ndax loolu am na la nga xam ne mënu ma cee gëmm sa wala ma tànqam la ko am na nu ma dégg discours Bassirou Diomaye Faye pour man c'est inquiétant pour l'avenir de Ousmane Sonko dans leur relation benn benn dama koy méngale ak lu ci àddina du ma sori Gàmbi gii lay dem Gàmbi Adama Barrow bi ñu ko falee ni ñu falee Bassirou Diomaye Faye lañ ko fale Ousseynou Dabo moo nekkoon chef de parti ba ñu tëj ko kaso ak yeneen quatre responsables yi toppoon ci moom élection ak Yaya Jammeh jot amuñu ku nekk candidat Adama baru nekk fi xëy na moom moo doon nekk benn jula bu yoroon mën a fay caution ñu ni ko nekkal candidat amuñu woon ci moom yaakaar opposition bi ak diaspora bi dajaloo fal ko Adama Barrow toog dikk néewal boppam lool ni Bassirou Diomaye fay di def kàddam néew kàddam sedd léeg-léeg sax dañ naan day nelaw rek président buy nelaw la Ousseynou Dabo ñëw mu dugal ko ci gouvernement bi jox ko lépp taxaw ni Gambien yi bu ma nekkee bu ma faloo kii moo tax kon delloo naa ko lépp Ousseynou Dabo nekk fa di def ak di tëgg dënam di lu ne moo ca dugg Adama Barrow duggul ci lenn toog di seetaan ñi naan daa ñàkk faydaak ñi naan daa yaafu sëg lu amul lu ñu ko waxul woon ba mu demee ba nga xamee ni jekku na ba muy roppi Ousseynou daabo tàgguwul kenn dama mujj sax Gambien yi ba ñuy rocc Ousseynou Dabo dañ di ndokk yàlla. te pourtant Diomaye anticipé na ci li ngay wax nii. ndax problème yi ndax problème yi xam nga problème yi Gambie ba ñu problème doon dund. Hmm. Ousseynou Dabo moo doon jotee Gambien yi tey boo xoolee Sénégal ni muy doxee da nga fay wax léegi waxu presse bi ku joteeg presse bi Ousmane ko moo joteeg journaliste ne leen du ma leen rendre compte am déet moo joteeg patron de presse yi moo joteeg assemblée nationale moo joteeg marchand ambulant yi. moo joteeg homme d'affaires yi am déet. mais ci presse bi. mais non mais dama lay wax rek dama lay expliquer di la. wàllu Ousseynou da euh, dama lay ba amnistie nee na. non magistère am bu kenn espérer non moom la jox raison waaw mais non dama bu amee jotee laa la wax diggante Ousmane Sonko ñooñu la ma ma lim. muy marchand ambulant yeeg muy presse beeg di entreprise BTP yeeg di entreprise lii ak lële ba seen jomaay fi kenn jotewul ak moom. boo seetloo Bassirou Diomaye Faye day dem di sukk ci kanam sëriñ ci di leen seeti Ousmane Sonko mosu leen a seeti barki dem boo jaay la koy soog a def li ma ciy ragal ak di ko ko ragalal mooy tey bu coow amoon dañ naan kii mooy problème bi mais président bi amul problème néew ma coow day am de mais tey bu coow amoon dañ naan kii mooy problème bi. mais nga bëgg a anticiper ci loolu. parce que moom il a été vraiment très clair sur cette question. non tout le xabaar yi laaj. j'étais sous son ombre pendant plusieurs années aujourd'hui s'il me fait de l'ombre aussi ma jël entre autres yoo xam ne wax na ko pourquoi di di xalaat aujourd'hui ce coup d'état wala wala rampant wala li ñuy wax entre guillemets wala leneen ak leneen coup d'état rampant dama ne dañuy xam nga sama xel aussi ak sama analyse kenn mhm. mënu ko tere oui parce que ku nekk da xool lan moo war a mën a nekk mu nekk parce que dañoo gis lu xew dem bëgg dem Sénégal fii la ak Senghor ay xarit la woon yu ñëpp xam. est-ce que c'est la même chose. non non non néewuma même chose déglu ma rek ma explique. ak Senghor dañoo nekkoon ay nit. Mhm. nekk ay xarit yu ñëpp boole. ki nekk premier ministre kii nekk président ñuy jëflante Mamadou Dia yor xadaram Mamadou jaa yor melokaanam ni tey boo koy méngale xëy na boo doon méngale nag naan sengoor moo yor jikkoy Bassirou Diomaye Faye <laughs> Ousmane Sonko yor jikkoy Mamadou Dia bu jotee amee ak sëriñ si Mamadou Dia la woon. bu jotee amee ak syndicat Mamadou Dia la woon bu jotee amee keneen Mamadou du la woon Senghor nekk ca ginnaaw bis ba jotee ba diggante ba seen diggante neexut parce que diggante mën nañoo neex bañ a ëllëg su benn mu naq mu naqari ba seen diggante neexul dañ di bañ fay jëlee Mamadou Dia bari nañu ñu woon ndokk yàlla néewuma loolooy xew mais damay joxle ay méngale. mais pour cette fois-ci légitimité politique bi Ousmane ko moo ko yor Bassirou Diomaye fey peut-être euh, ci légalité la ñu mën a jàpp ne moom légalement il est le président mais légitimement Ousmane Sonko. non non légitimité politique a été déterminant pour légitimité politique bu dee am réew amul. xam nga lan moo am. Mm. aujourd'hui légitimité institutionnelle. Mm. Ousmane Sonko lu mu bari doole bari doole mënut a signé décret bu Bassirou Diomaye Faye bëggut a signé. tey décret bu nga xam ne ni hmm, Bassirou Diomaye Faye bëggu koo signé Ousmane Sonko mënul mënul tax mu jàll. am na décret ya nga xamee ni sax pour vous dire lan moo nekk seen différence tey boo dikkoon di nommer ay militaire wala ay ambassadeur kon premier ministre du ko contre xam nga loolu dafa am euh, wuute gu am kon bu man di doon doole joo am ak dara joo am président bee la ko jox maintenant bu ñu defee ay institution yu ñu changé règle yi ba jox premier ministre ay règles ay règles institutionnelles la loolu leneen lay doon. il a donné les prémices parce que nee li mu gëm mooy régime présidentiel fort bokkul ci ngëm-ngëmam mais li mu gëm mooy ñuy diluer au contraire les hmm. pouvoirs du président de la république. donc mais loolu moom mënu ko dogal mën na jël